doona ji ñeen te ñoom ñuy wax ñëpp waa APR seen ministre yeeg seen seen seen seen wëri dañuy dañ ay tàppat lañ ay tàppat lañ te bëgg naa dugal foofu benn affaire parce que mbër yi lu mbër nga xamante ni nii dañoo yor seen làmmiñ bu ñu leen joxee xaalis ñu génn dañ leen xam ne ñun soo ñun leen ñun réew mi ñu ñor dama di wax ñoom ñan ñoom kan ak yi génn yëpp tant que son d'appelé départ ci baaboo yi mi njëkk bi mu nga xam moo ci mag ci ay at ba ci ki ci gën a ndaw muy sita ci suuf amuñu complexe doomu aadama bu fekkente ni bu dee fit boo kesee xam nga lañu ëpp doole doole doole ngan na neew yi mais bu dee fit ñu leen ko ëpp bopp suñu réew tax ñu mënti toll ku départ ci kaw ba ci suuf ba ci moo neexoon ku wet na laaj Yékini mars 2021 bu ñu bu génn jotee rek ñoom nañ génn nañu arrêté booy yi su boobaa dinañ xam ndax xam ñoom mën nañ wax ak booy yi wala mën nañ canaliser nit ñi réew mi duñ ko bàyyi ci ay nit yoo xamante ni dañ leen ko jox ci njëkk ak teraanga man benn damaa voté Macky Sall xeex ngir Macky Sall fal 2012 ci njëkk ak teraanga lañ ko jox réew mi moom war a jeexal mu ne du ma joxe réew mi ci njëkk damay xool ki ma neex mu teg fi ñu ko dañ koy jox ñun ki ñu bëgg ñun Sénégalais yi kooku lañ koy jox loolay dëgg ndax am ngeen yaakaar ne euh, li ko daal nii dina ci jug ak jàmm loolu ñoom ñoom ñoom ñoom ñun sax ñun bu ñu yexe bay ñaan ñoom nañ ñaan yàlla Sonko wér ñoom waa APR nañ ñaan yàlla Sonko wér sinon ñoom dootuñu génn wala ñu dox ci jàmm ci réew mi noonu dootu mën a nekk moom ñu doon ñoom ci réew mi ci ñun xanaa kon boobaa ñun Sonko moo ñu ñun ñun gorewuñ kon ñun Sonko tayal na boppam joxe na boppam non non gis nga am na wax fa àgg parce que day day day day day day day énervé nit quoi d'accord ñeenti fan ci ginnaaw président Ousmane Sonko déclaré que ne wóoluwul juge bi ba taxoon mu demande nañu renvoi projet bi jamono bii nag juge boobu ba tey moom lañ teg pour mu àtte dossier bi mais li ci mujjee am mooy dañuy def procès spécial boo xam ne dañuy woo avocat yi ak ñi mu concerné ñu ñëw nga xam ne du am jarul sax président Ousmane Sonko ñëw di wuy si ndax loolu euh, njortu ngeen ne ba tey da ngeen da ngeen mën a calmer yoon tracé li muy tracé ci wàllum diffamation bi ñuy toppee. waaw yoon nga yoon nga wax Sénégal yoon dèjà amul yoon bëgg-bëgg Macky Sall de dem di nga bi nekkoon ancien procureur bi mu génn di wax Aliou Ndao di expliqué. dem bànneex président bi la ñuy dab kese loolu dong la ñuy dab donc kon loolu foofu waxuñu fa yoon xam nga euh, ñoom li ma leen wax chaque jour dama koy wax ci samay live des fois. ñun amuñu plan B amuñu plan C Ousmane Sonko bokkul réew mi élection fa am bokkul maanaam Ousmane Sonko day bokk par force ñun loolu mooy suñu wax cest à ñoom nañu àtte lu leen def yàq casier boo yàq casier dafa mënul génn wax su génnee c'est-à-dire ñun Ousmane Sonko ndigal lañ koy laaj te ndigal heure bu ko joxe gars yi ko defal cest à ñoom li ñuy def ndigal yi mooy day bokk par force ñu bàyyi ko mu bokk par force bu ne élection du fi am ñun ñëpp ñu d'accord ci élection dafa élection du fi am opposition ça réew instant bi ñaari bu leen neexee ñoom ca ñoom sax ñun ñoo a dogg ñun ki ñuy waxal joxuñu fayuñu ñun dañoo gëm rek ndax dañoo bëgg sa réew mi baax moom nag ñi mu jox ñi mu yor foofa mu jox leen te am amuñu fit amuñu fit ci islam ci islam tooñkat du am fit tooñkat du am fit te ki nekk ci dëgg chaque jour mu yëpp fit ñun nag dañu ëpp yoruñu doole yoruñu armée yoruñu police yoruñu gendarmerie te am na fi jàmmaarloo ñoom taxaw terrain bi d' accord avant dernière question ndax yaakaaru leen ne gersa gersa bi rax nañ leen ndax gis nañ ay boy ci di sàcc di agressé loolu Macky Sall la concerne loolu Macky Sall la concerne xam nga réew boo ko jiitee moo waxoon ci làmmiñam mu ni réew am na koo xam bu fekkee boo ko jàppee indi euh, émeute ci dëkk bi di nga sóoraale loolu léegi yow moom bien public yi nga xamante ni ñoo ne ci biti bari maa ci teg sama loxo voilà bien yi nga xamante ni moom moo ne ci biti ñooñu ay sénégalais ñoo xam dañoo ñafe départ ci ci dërëm ba ci million dajale seen alal yow yaa ko war a sàmm sàmm mooy lan gis naa ne Ousmane Sonko mi la ci réew mi ëpp ma ko doole ci ëpp ma ko ay ndaw ci réew mi kon naa xool nu may koy may dox ak moom léegi nag am for cause day am ci fii ñu nekk nii bi bi bi bi bi bi ñëwee lu ñuy wax loading bi mu amee loading bi loolu gis booy génn dajji magasin yi jaay or ak yi jaay téléphone lépp la ñu daaj def leen neex kan mooy responsable état c'est pas dafa am keneen koñ jox rek saa ba Ousmane Sonko am ñu bu ñuy raxee tamit ñoom la concerne ñun ñuy xeex nekk ay bu xam ne mosu ñoo sàcc fukki dërëm bu ñu moomul duñ lekk luñ lewul kon ñun xam nañ réew mi tax ñuy xeex sàcc yi dugg ci biir nag pour lekk loolu du suñu problème parce ñoo bëgg rax ci loolu ndax réew mu metti ak jeunes yi amuñu a def mais loolu état ni xeex sàcc ñu defuñ dara mu libéré ñëpp réew mi doogu mën a nekk ci jàmm mais sinon bu fekkente ni ci nii la ko jàppee prison emprisonné nit yaakaar nit ñi dinañ ragal mbala mu def yi muy def nii dina paat xam nga li gën a bon mooy tàppat boo jox doole Macky Sall ay nitam ay ragal lañ ki nga tàppat boo ko joxee daal ki nga ko am fit dëgg da nga gis nga Ousmane Sonko bi ñu tojee verre ni mu toog raful raf defu ko xamul ndax fit boo ko amee day nekk ci yow da nga koy judduwaale mais tàppit bu ñu jox doole lu tourné mu dóor parce que pour moom lu ko jege da koy rey cest à wallaahi li ma wax dafa dëgg ay ragal yu ñu jox doole la doole bi ñu leen jox nag du seen doole boobu rek gis nga bu gendarmerie ak police ñëwoon ces personnes loxo ci mbir yi nga taxaw gis ministre bu taxaw di saw parce que ay mais leen jox doole bi ñu yaakaar sànq bi justice à faire son son son son travail un reste force yooyu ñu mooy que ni yooyu mooy doole ci ginnaaw ci ginnaaw police ak gendarmerie lañ lañ yaakaar. mais bu nekkoon ñoom kese. Mhm. come on man. ok léegi ndax seen xel daal na parce que def nañ ko ñaari ayubés ci ginnaaw. Mhm. bip ñëw toj oto Ousmane Sonko génn ko ci biiram. ñëwaat gendarmerie defaat fexe ba tijji port bi nangu ko ci seen loxo dugal ko ci otoom est-ce que loolu yaakaar ngeen ne seen leader su ko gars yi bëggee jàpp dañ koy jàpp. parce que def nañ ko ñaari ah, yoon non non non est-ce que pour yéen a ngi bàyyi xel côté boobu. mais mars la nekkoon nekkul woon suñu loxo di ci seen loxo la nekkoon mais ñun def na ñu def bañ bàyyiwaat ko ñoom amuñ problème ci ñun ñun ñun ñun leen ñoom bu fekkee jàpp lañ jàpp ñoom ñoo la gën a xam yow ki nga li nga ñoom ñoo la gën a xam mars 2021 ñun yoruñu woon Ousmane Sonko instant Ousmane Sonko day ñibbi këram di dem ñëw di tëdd ak nelaw de kenn jàpp ko mais mars 2020 dañ koo jàpp dañ koy tëj mi lan moo dikk kon ñoom jàpp bi ñuy wax ne ñëw def say affaire ci di def say film ñëw def waaw dañuy nappe rek ba léegi ñu ci nappe te ñoom ñi ñu ñàkkaarlool ñun laa xawfun alayhi ñun tiit nekku ci ñun ndax dañoo wóolu yàlla saa à dire ñun ragalu ñu ñoom yi ñuy def ni ñu cinéma lañ ko jàppee mhm. bis buñ jàppee Ousmane Sonko ba ni ko raj na ko condamné rek den su boobaa ñun ñu leen ok léegi ñun ñu wàcc ci terrain ñu ak yéen ngeen xool ndax am lu def fi ñu koy tëjee ban message nga am pour sa mbokku euh, patriotes yi en même temps jeunes yi nga xam ne ñoo nekk si le terrain li ma leen di wax ñoom ñëpp mooy que ni bu kenn jàpp ni yonjoxal wala Ousmane Sonko li ma wax keroog ndax xam nga dafa benn live ma def jékki-jékki di wax ba caag sama xol fees ma soxla wuñ ku ku jooy wala soxlawuñ ñuy yërimtalu wala soxlawuñ ay jàmbaar lañ soxla gis nga dañ li ma bëgg xam mooy li may woo patriote yëpp Ousmane Sonko bu mu ñu gën a goree même yenn leaders yi nga xamante ne soi-disant ñoom ñoo ko wër ñoo yor poste yi ñun ci mais Ousmane Sonko ndeyu mbilig bu mu ñu gën a gore loolu rek moo ñu war a ñor ñu nekk ci combat bi wan na ko Ousmane Sonko yow doo ñu gën a gore ndax yow ñaari góor moo la jur ñoo la jur nga judd ñetteel leen ñun tamit ñaari góor ñoo jur ñu jug ñetteel leen kon donc dañ ciy nekk di woo patriote yëpp jeunesse bi yëpp bu leen bu leen tayel bu leen découragé gëm leen ci lii ngeen nekk mooy changer seen avenir lii ñu nekk nii mooy tax suba suñu mbir ba baax ndax ñi nekk ci combat bi la majeure partie ñu nekk ci affaire Ousmane Sonko ñii am nañu kër ñii am nañu oto ñii am nañu jabar ñii am nañu doom mais terewul ñu ngi ci terrain bi di xeex ndax Sénégal gu baax moo leen ñor combat bi c' est pas combat personne Ousmane Sonko lañ bëgg mu nekk président mais combat bi réew mi lañ bëgg mu baax ñu réew mi dootul jox ci deal ci ay corruption ci ay tappale ci question de privilège tànn ay nit yu ko war a am ñeneen duñ ko am loolu dong lañuy ñuy xeex te dinañ ko xeex ba suñu dernier suuf ñu xam mëntuñ ci dara ñu toog noppal jaamu yàlla.